jili jaar naa la maa ngi lay nuyu di bëggee ñëpp bëggee sama gaay waaw booy Faye suñu xarit la suñu waay la sëq ak ñun jàmm nekk ku baax waaw dajale ñëpp waaw loolu daal lañu xam si moom kon su xewlee dañuy ñëw ko xam tey fi mu toll nii gis nañ fi mbëru parcelles yëpp ñëw nañ dajaloo mu mel ni wolof naa booloo mooy doole daa mel ni booloo ngeen doon benn si waaw waaw nun booloo lañuy ñaan te yàgg di booloo xam nga booy booy jógee na ginnaaw raay ñëw fii xaw ma tey suñu neexoon ni duñ ko yaatal mais moom moo ko wane nag moom moo ko wane xamal nga sax ak ñun jàmm heure entraînement ku la gisul sax da lay woon ne booy tey lu la téye xam nga loolu moom nit ku xam ne moom moo kii rek moo la koy defal waaw looloo tax ñu téye ko ba tey fu xewle rek dañuy taxaw ndax ñu ñu ñëpp ku si xewle day taxaw boo amee combat day taxaw bu xamee nit ku baax koo xam ne mën na la ñaanal ba nga daan la fa yóbbu kon daal ñun ñu ngi koy ñaanal doomam bi màgg ba xama rek lu mu si bëgg yëpp yàlla defal ko si barke alxuraan. nga gën a namm ci làmb. lu ma gën a namm si làmb ambiance bi ambiance su làmb beneen affaire la. loolu dégg a gis naa ko gis euh, bu tax ñuy wax ambiance su làmb. Modou Lo Balla Gaye revanche bi. feebar bi moo tax Sénégal dem na ci deuxième vague ñu ci bari yaakaaroon ni mbëri dinañ bëri loolu nga wax moom naa mbëri ndaw yi mbëri ndaw yi moom am bari ñoo xam ne dañ naan ay mbër lañ loolu làmb dafa nekk loo xam ne newul ñëpp ñoo si mën a lekk boo nekkee mbër mu ndaw di jéem nekk say ginnaaw grand frère grand frère sax yenn saa yi day dëgg si ñoom dañuy fay ko ay millions kon boo nekkee mbër mu a da ngaa war a wut métier boo amul métier nga jéem a xool loo xam ne chaque jour au moins di nga si mën a am 3000 nga xam ne doo taxaw kenn naan ko grand lii ak lii man li may gis man damaa yor sama métier man garde rapproché laa man chaque jour damay xëy waaw te yenn saa sax day dëgër si man noonu la demee loolu loolu message boobu daal maa ngi koy jàllale mbëri ndaw yi nañ jéem a wut si luñ jàpp bañ a téye làmb ji kese ndax làmb ji kese doxul ndax tey jii da ngay bëgg a bëre boo joxul xaas du la jox combat. léegi yow boo joxul xaalis duñ la jox combat liggéeyoon nag kan moo lay joxal xaalis boobu noonu ak dëkk bi fii mu toll waaw kon nag mbëri ndaw yi nañ dem liggéeyi xam ne liggéey mooy lépp doo taxawu kenn mu lay naan diw daf maa sonal si lii ak man sama bopp man damay liggéey waaw du nuyu sama benn grand frère bu baax maam Ngor aw ma fayam chaque jour day sonn si man maam Ngor di bëggee sama gaay yëpp fay biram baay sey di bali bali xam nga mas gambe ñëpp daal bàyyiwuma kenn sama gaay yëpp